liberté waaye Ousmane Sonko nag du ca bokk ndax la koy toppee bokkul ak la tax a jug bile loi libération des lu ci boobee ne ginnaaw conférence des présidents bi ñu doon amal ki démb nag commission des lois tey jii ci talaata ji nag daañu ci amal ab ndaje ngir lu jëm ci boobee loi amnistie Thierno Alassane Sall ak Inaakuwa jàppoon ñu ngay yuuxu scandale lu mu ci mënti doon daal mbir yi nga xam ne rek moo tax a jug boobee loi nag yéenekaay bi ma nga cay dellu soit ne lépp lu jëm ci wàllu bakkan bu ñu faat mbaa ay njaaxum yoo xam ne rek def nañ ko ci diggante février 2020 2021 ba février 2024 lépp le président Macky Sall fas yéene neenal mu di ab projet de loi boo xam ne rek fas yéene na ko woote ci fast track yéenekaay bi di Vox Populi nag dellu siwaat ci motif yi nga xam ne rek moo tax a jóg boobee projet de loi amnistie bokk na ci daal di setal nag lépp loo xam ne ay mbir yu fi jotoon na jaar la lu ci mel ne ay infraction criminelle correctionnelle moo xam ñu amal ko fii ci réew Sénégal wala ci biti réew jaarale ko ci ay manifestation wala ay mbirum politique kan moo nar a ci boobee loi laaj boobee le xëy samp ci xëtam bu njëkk ne loi nag prox ndoolu la fas yéene doon ngir Ousmane Sonko mën caa jaaree moom boppam yéene bi di Les Échos ne Macky Sall kay ma ngay ragg dërëb Ousmane Sonko ak ay ñoñam texte boo xam ne rek war nañ koo saytu niki tey jii daal di amal ab commission plénière niki ëllëg ci àllarba ji Walf Quotidien ne jamono ji kay waa CPI ñooy beneen obstacle bi nag yéene kaay bi ne Parti démocratique sénégalais jamono ji nag dafa nekk ci ambara amnistie mooy texte bi nga xam ne rek ca ko ci xëtam bu njëkk ne jamono ji naka ña ngay joggate lii nga xam ne rek moo di norme pénal yi ma ngay dellu suwaat ci poursuite yi nga xam ne rek ñu ngi ko war a amal ca cour pénal international ba tey lu jëm ci projet de loi amnistie boobee du Sud Quotidien ma ngay xam ne ni nag fi mu toll nii nag waa assemblée nationale rek ñoo ci des nag ngir neenal lépp loo xam ne rek ay mbir la ñu jotoon a amal fii ci réew Sénégal ak ca biti réew jëm ci ay infraction criminelle ak correctionnelle ñu amal ko diggante 2021 jàpp 2024 ci Sénégal mbaa biti réew lu ci mënti kaay nag ma ngay xam le ne lii ab gàcce gu rëy la nar a doon bés bu ñu ko taxawalee ci réewu Sénégal yéene kaay bi ne président Macky Sall moom lim ci jublu rek ay ñooñam ñoom ñi xam ne rek dañ leen a yàgg jiiñ na ñoom ñooy recruter ay nervi yoo xam ne rek dañuy gànnaayu waral ba yëgle kaay bi ne projet de loi boobee nag amu te kenn waru ko fee taxawal réew mi quotidien dellu si waat tey jii ci bi ñu tënkee rek ci dialogue national bi président biir yëgle bi nag ma ngay xam ne ni dana dem seeti ji waa conseil constitutionnel Macky dana leen seeti ji kay ngir nag mën a taataan seenub xalaat bu ñu sukkandikoo ci yëglekaay bi di la soleil mi xam ne nag jamono ji li gën a yitteel gouvernement bi nag bokk nga xam ne rek ngi ko bëgg amal ci nu mu gën a gaawee moom président de la république nag jot la nga xam ne rek mooy rapport bi tukkee ci dialogue national bi 24 heures ne union européenne ak waa ONU nag ak ñii di britannique yi ñu ngay gën a xupp gouvernement bu Sénégal ngir mu daal di gaaw soobu ci ay élection mu fekk maître Sidiki Kaba ak Ismaïla Madior Fall ci ab rapport bu ñu fësal nag di sàkku ci ab coopération ak ñi di waa conseil constitutionnel ngir lu jëm ci application article bu alinéa bu constitution bi jeexale yëglekaay yi ak wàllu tàggat yaram réew sport ma ngay dellu soit ci équipe nationale ak waa fédération sénégalaise bu football mi nga xam ne rek ña ngay fësal programme gaynde yi ci weeru mars bi stade yëglekaay ma ngay àddu nag ci ligue des champions ak huitième retour yi nag yéenekaay bi ne mardi ji nag Bayern moom mi ngi ci danger waaye Paris nag li mu bëgg mooy confirmer jeexaleeg sunu lamb mi àddu